ñu présenté résolution bi dañoo gis résolution bi titre ba mooy ni ñoom dañoo bëgg a leeral si yan anam nañu éliminer Karim Wade ci élection présidentielle bi loolu mooy tiitre résolution création commission d'enquête parlementaire mais bu ñu xoolee euh, article yi ñoom lu ñu wax dañuy créer commission d'enquête parlementaire portant sur le processus électoral ku dégg tubaab xam ne ñaar yooyu dafa wute loolu nag nañu relever ñu ne y a une contradiction et une incohérence jëm leen préciser l'objet et le champ d'application de cette commission d'enquête parlementaire parce que processus électoral moo ngi commencé sa inscription yi di jeexee ci la proclamation définitive des résultats de l'élection présidentielle luñ ci annoncé waale mooy ni ñoom dañu bëgg report dañu bëgg arrêt du processus électoral mais ñun en tant que démocrate en tant que républicain mënuñoo associer ci dara loo ko xam ne prétexte la wala alibi la pour jéem a violer constitution bi parce que calendrier électoral bi article 31 de la constitution mu ko fixé ñun si principe yooyu nañu wax ni moo tax ñu ne lii nii ngeen di jéem a utiliser comme prétexte ak bi ñun mënuñ see ànd